tey boo doon comparé tey Diogoye Sène Ndiankou jeune talent euh bokkuñu dafa melni tay ngani Messi Cristiano Ronaldo ngani am comment dirais-je nga ni Rooney ah hein? poste yi bokul jogoy mo gëna talentueux euh jogoy dafa am facilité am verve facile Diogoye euh, li ma sentir ci mom moy Diogoye fi mu tok mën na wax lo xam du ci delluwaat donc donne euh, personnage bo xamné mom moom mi ngi koy incarné mu donne lu lu lu lu doy waar loo xam lu extraordinaire lu naturel bon, ko dégloo da ngay sentir ni li dafa naturel ci si jogay kon japp nga ni il est le meilleur. je ne je ne dis pas il est le meilleur kan ku ci nek meilleur nga ci sa domaine. il est le meilleur personne n'est meilleur au-dessus de tout le monde kenn ku ci nek dafa am lu la yàlla may li la may nak doomu aadama yi kenn ku ci nekk suñu borom roof na la xolub nga bëgg kooku di ko topp